voilà voilà tey moom débat bi. Uh-huh. nii la mënoon demee. waaw ah, lu tax moo waroon demee maanaam maanaam lu tax moo waroon demee nii. lu ma bëgg a wax. Uh-huh. lu ma bëgg a wax mooy man du ma bokk ci ñuy wax ni Macky Sall n'a rien fait dans ce pays. Uh-huh. parce que ku nekk ci réew pendant fukki at. encaissé gën gaa néew plus de quarante mille. milliards mais da nga naan toj na fi. non non non non déedéet wax Macky Sall na Sénégal. je termine nag. non loolu foog sénégalais xam ko loolu mën na nekk dëgg. mais dans quel sens. ah toj na fi de parce que moo fi yóbbu ay 14 morts amul ba léegi coupable yóbbu fi fan yi passé ay 19 ay 13 morts di def ay affaires yu ñàkk xorom di tuumaal ay nit yoo xamante ne sénégalais yëpp. xam nañu dëgg amu ci dara amul. c'est vous c'est dans vous donc sama sama ligne de de de juste pour wax ni. Hmm. juste pour wax ni ku toog ci réew pendant plus de 10 ans. Amandé yow ñu ngi lay wax ay 17 mois moo la fi des.

quarante mille milliards la ñu jox nguuru Macky Sall bu mu faloo ak léegi ci budget mhm. ci biir quarante mille milliards yooyu solo leen lan mooy seen budget lan mooy seen bilan mën naa wax ni man maanaam priorité yi tax sénégalais yi faloon leen mhm. yaa ngi wax sànq ci justice justice bu tëgg të tëddeewul njaaxaan naay il a fait un aveu sànq nee na sénégalais bi nga xamante ne yoonam nekkul ci ci politique mhm. saa su demee ci yoon dinañ ko àtte convenablement yoon day exercer day day day non c' est ça. Ablaye nga wax loolu c' est ce que vous avez dit c' est ce que vous avez dit tout à l'heure mais par contre su fekkee ay homme politique. nous pouvons manipuler nous pouvons manipuler la justice. non waxal dëgg waay Ablaye. xam nga le le waxal dëgg waay Cheikh bi waaw ma ma terminer rek. Cheikh bi waxal dëgg waay bu soobee yàlla lu ma bëgg a wax. dinaa ko wax de te Sénégal ñu ko dégg. xam nga le procureur de la République il est sous les ordres du ministère public. Mhm. le ministère de la justice. Mhm. le ministre de la justice il est sous les ordres de Macky Sall. Mhm. justice ñeent ñii ñoo ko yàq procureur de la République juge d'instruction juge d'instruction. juge d'instruction je pèse bien mes mots juge d'instruction. nga xam ne le cas baara baara baara dolli. ah non moom maanaam procédure de ci cappaandaw ga. ne pour ne dañuy ubbi information judiciaire mais ñii kan la ñu yàpp. Mm-hmm. loolu nekk benn en matière de justice moom da fa lajj te bokkoon na ci lu sénégalais yi doon ŋaññi parce que sénégalais yi ne woon na nguuru Macky euh, Abdoulaye Wade amoon na ñu doon nemmeeku. ku far ci yéen muy euh, Samuel Sarr Navel Olinda ñu koy tuumaal neuf milliards sept cent mu rali yow ci Macky Sall France daal di xiddal Awa Koudou Ndiaye kër yi bi ngeen teg mettre en place boole ko woon ci listam fan la mujj Balde Ziguinchor fan la mujj mais ma ne su ma doon lim fii laay fanam parce qu'ils étaient une liste de vingt cinq personnes ñaata nit la fa vingt six personnes du lañ ci teg loxo matul juróom ñeneen ñëpp parce que léegi dañoo rallié wu ci côté Macky Sall justice teg loxo Macky sax moo ko wax d'ailleurs ci boppam moo ne dossier yu bëri ci réew mi maa ci teg sama kudd donc luy même ki waroon joxe exemple. te waxoon na du du défendre képp koo xam nekk parce la jaayoon Sénégalais yi balaa moo falu. moo tax ma ne ko échec ci justice. na ko nangu te yàlla tax nee nga sànq lu doxul da nga naan doxul nangul ne justice bi doxul parce que Macky Sall est en train de protéger les gens comme Cheikh Omar Anne comme Mamour Dia Mamour Diallo comme ki nga xamante ni mooy Farba Ngom nga xamante lu mu def loi sax daf ko tere même su fekkoon alal gi fu mu ko wutee dafa lew mais loi daf ko mais du mujj parce que il est avec Macky donc loolu laa bëggoon a wax ci justice sans oublier aussi lu ñuy wax ci justice prison yi ñu ngi fees del et nit ñi ñu ngi leen di placer sous mandat de dépôt sans pour autant ñu juger leen tabaxoo ay tribunaux yu bees recruter loo ay magistrats yu bees te soo demee fac droit bi waxuma yeneen université UCAD bi chaque jour nga dégg ay maîtrisards ay doctorats nga ne yow doo recruter kenn da ngay toog rek bàyyi justice bi après ku ci nekk dossier man de man damaa toog ak le juge nem si yàlla juge d'instruction. Mhm. Samba Sall. bu muy toog moom man ak man maa nekkoon ci bureau bu mu ñu doon entendre avocat bi di wax ak moom mu ne ko non le problème moom Samba Sall. mu ne ko le problème de la justice mooy on n'a pas beaucoup de magistrats et que yi bëriwul. Mhm. état bi su créé woon ay tribunaux recruter ay magistrats yu doy dossiers yi du bëri ñu muy bëri ci dossier ci ci bureau yenn magistrats donc moom moom mhm. juge mooy wax loolu. donc foofu la jënañ fa beneen bi ci topp askan bi bu mu leen di fal c'était que pour ngeen réduire la pauvreté dans ce pays ANSD nekkul démembrement de l'État mhm. agence nationale de la statistique et de la démographie mhm. ANSD moo wax ni ci rapport am plus de six million de Sénégalais vivent dans une pauvreté extrême mhm. ANSD boobu moo delluwaat wax ni près de quarante pour cent des Sénégalais ne peuvent pas avoir mille francs par jour maanaam téeméeri Sénégalais yoo jël ñeent fukk yi mënuñu am ñaari téeméer suba ba ngoon jot moo mu ne réew mi mi ngi dox réew mi mi ngi avancé mi ngi nax boppam waaye sénégalais yi toog di ñu seetaan xam nañ ne réew mi doxul yéen a ngi wax sànq ci waxum emploi des jeunes mais rapport OIT nga xamante ni ça n'a rien à voir avec l'état du Sénégal c'est une organisation internationale du travail taxaw génnee rapport ne Sénégal mooy ñetteelu réew ci àdduna nga xamante ne adduna bi soo koy xayma ëpp na quatre vingt wala quatre-vingt-quinze pays di dem ñu ne la yow yaay ñetteelu réew bu ëpp ay chômeurs FMI foo monétaire international génnee rapport am ne Sénégal vingt cinquième pays le plus pauvre dans le monde. dans quelle année. non non non non amul ah, mais est daa am leneen lu ko dindi est daa am beneen rapport bu dindi loolu. dans quelle année ndax daa am beneen rapport non xam nga rapport su génne leneen du ko dindi du ko dindi lu dul beneen. rapport bu ñëw du kat bi léegi da fi léegi beneen bu ñëw fii léegi beneen rapport ñëwul génne la si classement boobu loolu je termine rek. mu ne la Sénégal muy wécc nga jël rapport transparence yi mhm. en matière de gestion transparence na nga tënk parce que on me signale que temps bi jeex na rapport transparence yi de transparence dans la gestion des biens publics mhm. rapport transparence yi ne Sénégal est dans la zone rouge soixante-sixième pays dans le monde et huitième en Afrique derrière la Gambie mhm. munu cee dindi tarfatal ay ni lu may wax ni parce que damay joxe ay ay ay ay source gis nga Sénégalais yi foofu lañ leen doon xaar njàng mi dafa sooxe balaa maa dee ñu naan dañoo yokk euh, kii wu enseignant yi les enseignants se sont battus pour que ngeen yokk seen i salaire te da ngeen doon dem ak ñoom bras de fer ah ngeen dem ba xam ne amoo leen échappatoire d'accord le conseil de cap di ko sonal d'accord merci beaucoup merci merci merci euh, euh, Abdoulaye Adama ban tontu nga ciy tontu balaa ñuy tontu parce que man moom laa doon tontu donc su tontoo damay tontoo non non mën na peut am ay réajustement. non non waaw am na ma réagir par rapport ak non non sinon on va pas terminer. moom dafa wax ma tontu ko su tontu waatee damay tontu kan. c'est-à-dire oui. gëreel nag quoi quand même quoi qu'on puisse dire <laughs> voilà. sa waxal bi dëgg rek la non non non. donc kan nangul ma loolu vérité vérité. non non non des vérités palpables quoi. je vous ai donné des maintenant bàyyi ma bàyyi ma ñëw. Arma je vous reconnais plus li tax Sénégalais yi fal. Mhm. Sénégal. dañuy jël réew. ci wàllu justice. je pense que daf nga énumération yeneen yi mais ci wàllu justice. déglu rek. dafa ne li tax sénégalais yi faloon ñu. ci justice lañ ñu doon xaar déedéet. ak yeneen ak yeneen. non déglu déedéet c'est à yeneen ak yeneen. non déedéet c'est à. non déglu. mais Coulibaly. attends si oui mais bàyyi ko bàyyi ko mu wax oui si joxe ay statistiques ak lépp mais quand même yooyu yëpp foog nga indi ci ay mais bàyyi ko mu bàyyi ko mu développé oui. voilà indi ci ay tontu indi ci ay tontu. di nga dal. Ah, non indi ci ay tontu. benn taxawal. maintenant croise les bras. vas-y croise les bras. non mais quand même. nous sommes en fait une des statistiques et des sources palpables. Ah, te ci ay je vais te dire sur ce que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce pays-là nous avons mis en place ce qu'on appelle les bourses de sécurité familiale. Récemment, nous avons accompagné 524 000 transfert. Oui, parce que par rapport à la situation. Hmm. N'est-ce pas loolu volonté chef de l'État la pour accompagner les populations qui sont dans des situations très démunies n'est-ce pas par rapport au au chômage il le dit hein n'est-ce ba ñu ñëwee ce que nous avons fait nous avons mis en place des cadres pour accompagner la population pour qu'ils puissent faire ce qu'on appelle l'auto-emploi ñu def ci loo xamante ni lu mucc ayib accompagner si la jeunesse accompagner ci les entrepreneurs les entrepreneurs de ce pays-là Et récemment, nous avons mis en place ce qu'on appelle Khayou Ça, c'est des, choses qui existent, qui sont palpables. Des jeunes qui sont payés à la fin du mois et qui travaillent. L'industrialisation. Diapone Oui, oui. Mm-hmm. c'est un pas. Nous allons vers l'industrialisation. Parce qu'avec le ministère, le ministre euh, Moustapha mm-hmm. nous allons vers l'industrialisation. parce que 17 mois moo leen fi dese du fi xaj du fi xaj. waaw dégg nga foofu nga l'état est une continuité l'état est une continuité moo tax ma ne ñoom duñ ko def ñoom ñoom duñ ko def. il ne faut pas le faire il vous reste 17 mois. xam nga man wóoruma sax ndax dinaa àgg sama kër. waaw mais il vous reste 17 mois incha allah incha allah c'est peut-être à dire. sëñ bi man puisque wóoruma ndax du ma àgg sama kër du ma du ma def météo politique. maintenant ce qui ce qui est ce qui est sûr. ce qui est sûr sa bëgg-bëgg. réaliste aussi. non j'ai dit. loolu mënul def ci fukki fan. bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi ko mu terminé. non non non non ñu mënul def ci fukki at mënuñu ko def ci 17 mois quand même soyons réaliste c'est moins de 17 d'accord bàyyi ko mu terminer li ñu def ci fukki at tey impact des réalisations du président Macky Sall sur la population sénégalaise parce que réalisation tamit day am impact. Mm-hmm. n'est-ce pas sur des réalisations. l'embouteillage coûté combien à l'État du Sénégal. mais ci tey gën na tardé Adama gënul tar nag parce que gars ñoo préféré gaal seen oto yi rek mais aujourd'hui combien de population quitté la banlieue pour aller en aujourd'hui on a réglé cette question là. non non non pas du tout. non oui oui non, non, non, il faut le dire. non pas du parce tout parce que nous nous mooy xëyal 9 xëyal 6 heures sax 6 heures. dès 6 heures il y a des embouteillages à partir du pont là. de la VDN 3 jusqu'à Mermoz. waaw loolu dama koy gis su may xëy. oui dama koy gis su may xëy mais donc c'est parce que loolu option la bu nit ñi def. amatuma tey la gën a tax ce qu'il y a dit mm-hmm. ce par rapport à ce que nous avons. je suis venu en retard à cause de l'embouteillage. déglu rek. Mm-hmm. nous avons révolutionné ce pays là par rapport ak li ñu sant. li ñu santoon li tax fi ñu fekkoon Sénégal les Sénégalais li taxoon ñu doon xeex deux en 2011 kuñ xamat la woon dans ce pays là am na fu ñu ko jëlee. am na fu ñu ko ak constitution bi ñu doon piétiner. mais nous n'avons pas jusqu'à présent nous n'avons pas piétiné la constitution par rapport par rapport par rapport à au mandat présidentiel. constitution moo jox droit bi sénégalais mu dem bokk ci ay mu dem bokk ci ay élections ñoom ñu indi seen parrainage tappale boobu di sepp ay sénégalais da ngeen vous avez bafoué la les les actes démocratiques des sénégalais nu mu tudd ci Coulibaly temps bi jeex na de temps bi jeex na vous avez piétiné les actes démocratiques Abdoulaye Wade sa mën a gën éloquent affaire électricité bi ce sont les fruits du plan tàkkal de Karim Wade accepté leen ko. le plan tàkkal est ba c'est non non nous avons mis des champs lu baax Macky Sall la lu bon c'est l'opposition loolu mooy seen discours tout ce qui est bien c'est Macky Sall. déglu ko déglu déglu ko balaa Yash balaa Yash di coupé. dañu am temps wu tàggatoo balaa ñuy balaa ñuy yëkkati jotaay allez-y non su paree damay jël Abdoulaye rapidement rapidement tënkal Adama ay ay toolu panneau solaire la ñu defar. tabaski bi seen xar amul ah ñu ñu nous avons fait des des champs de de panneau solaire pour régler cette question là. <laughs> xam nga dafa am loo xamante ni Abdoulaye nañu nangu lenn. xont gi seer na de. nañu nangu lenn. Mhm. mooy dañu am président de la République boo xamante ni dañ ko fal ci réew mi pour mu régler la question des Sénégalais. mu révolutionné. Mhm. mu révolutionné liñ fi li mu fu def en matière infrastructurelle. Sénégalais amuñu lu ñu lekk. alors faut faut pas chahuter bàyyi ko mu terminer. Sénégalais yi. Sénégalais mhm. sont fatigués. allez-y. amuñu lu ñu jëndee diwlin mais mais mais terminé. j'avais pensé que sincèrement. j'avais pensé que sincèrement. que non non non mais bàyyi ko bàyyi ko mu terminé. je dis juste. oui mais bàyyi ko mu terminé di nga bàyyi ko mu terminé. Abdoulaye bàyyi ko mu terminé oui. ci population sénégalaise bi. d'accord bàyyi ko mu terminé. partie de cette frange de xamante ne amuñu 1000 may dem super laay je vous respecte beaucoup. réciproque mon il ne faudrait pas. mais le respect bi ma am ci yow mënul empêcher mënul entraver à ce que Abdoulaye lu Sénégalais bi dund ceeb bi cher na. bàyyi ko mu terminé dañu dañu débattre bu neex a neex a ah, vous avez vous avez am nga possibilité wu di wax ak président soo demee ne ko lu yaas bi cher na. bàyyi ko bàyyi ko mu bàyyi ko mu terminé. diwlin cher na essence bi cher na location bi cher na. transport bi cher na amuñu lu ñu lekk. Sénégalais yi déglu nañu amuñu lu ñu naan. Sénégalais yi les les Sénégalais sont en train de vivre dans la famine. waxal ñu loolu président. Sénégalais yi ñu ngi lay déglu ñu génnee xaalis ñu bloqué ci compte yi. investir ko ci réew mi